su may wax ci Idrissa Seck dans le parle comme comme d'une symphonie inachevée cest à meew mu tuuru te meew mu tuuru te waaw. parce que Idrissa Seck vraiment euh, ku mënoon yor réew mi doxal ko la. yaa naa lay capacité. waxuma sax capacité mais daf ko mos a rêvé mos ko yàgg ko dund yaa ngi ci xalaat mos naa waxtaan ak moom un jour ci bu jëlee réew mi ni muy def mais premier jour bi mu koy jëlee ba fi mandat bi jeexi xam na li muy def te comme il est moo wàdd foofu la ko nuroo dafa il est orgueilleux dafa xaw a kii tuuti euh, bu ñëwoon dina def affaire yu waane quoi. dafa bëgg ngóor xam nga lim la mm-hmm. voilà. il aurait fait un excellent président de la République. Idrissa waaw c'est trop euh, xaw ma xam nga nag affaire nguur moom yàlla moo xam mais gis nga ñi fi xëccoo nguur gi yëpp euh, buñ ci jotoon moom bu ko jotoon kenn du ko ci mën. moom Idrissa waaw. Karim il aurait fait un excellent président xam nga son séjour au Qatar et puis bon. daanaka problématique yi Sénégal di jonkonteel yëpp daf ko dund ci Qatar affaire pétrole bi affaire gaz bi montage financier yi infrastructure yi waaye Karim mi ngi ci boppam loo xam ne nii tey bu ñëwoon doxal ko réew mi dox mais it di dafa xalaat dafa mos a xalaat ci euh, réew mi bu ko yoree ni mu koy doxalee ay grappes de convergence yooyu la lay wax te bu la ko expliquer da ngay xam ne nii yanu na maanaa tu comprends Euh, te bu yoroon réew mi dina ko doxal. dina ko doxal dina ko doxal te am na autorité am na désordre yu bari yu am ci réew mi yoo xam ne moom bu ñëwoon du fi am comprendre mais bon je pense que dafa def ay erreurs politiques yu bari. yu ko rattrapé répété ko. par exemple affaire Idi après élection 2019 bu génnoon toog jàpp njaaram ni tekk ni teg tey kan lay xëccool yëf yi. kenn kenn. parce que bu fekkee sax xaalis moo ko ci dugaloon wala dara mais xaalis mën na koo am lu ëpp te du dugg ci nguur gi boo positionné woo pour mën a gañe kay da ngay am ci xaalis sax moo ëpp xaalis bi ngay am boo duggee ci nguur gi bokkul